Am Koumba Thiaw euh, je suis inspecteur du travail et de la sécurité sociale également je suis la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère en charge du travail tey dañu ñëwoon fii au niveau de Thiès pour partager ak les acteurs locaux de la protection de l'enfant de manière générale mais également des acteurs de la protection euh, euh de, de, en charge de, du travail des enfants dañoo ñëw au niveau de Thiès pour vulgariser document bi parce que dañ ko tëgg au niveau de du ministère en charge du travail ñu ne intéressant na ñu ñëw en région parce que dafa am acteurs yoo xam ne ils sont sur place ñoom ñoo chargé wu mettre en œuvre ce document euh, ce nouveau document du compte de travail des enfants il était opportun wala urgent na woon ñu ñëw en région partager avec les acteurs de mise en œuvre loolu moo ñu indi tey au niveau de Thiès. xale yi liggéey bi moom même bu dul statistiques yi sax lu ñu wane mais boo xoolee nii rek. di nga gis ne xale yi ñu ngi ci mbedd yi à travers euh, la mendicité te boo xoolee mendicité foog dafa bokk ci les pires formes de travail des enfants également boo gisee xale yi ñu exploité par le travail ñu ngi ci petit commerce bi xale yi également ñu ngi dans les marchés dans les euh, dans au niveau des quais de pêche wala yëpp région boo dem rek am na travail des enfants peut-être spécificité woom mais tey ñëw nañ Thiès non pas seulement que Thiès rek moo am travail des enfants mais dañuy def tournée de vulgarisation mooy que ne tey dañuy ñëw Thiès après nañ dem feneen nañ dem feneen pour partager document bi ak ñi nga xam ne ñoom mooy les acteurs locaux de protection de l' enfant. voilà solution yi ñu ngi ci plan cadre bi nga xam ne tey moom lañ ñëw pour partager wax nga ko am nay effort yoo xam ne euh, ñu ngi ko def mais mu ngi persister mais liggéey bi day continuer toujours rek parce que boo xoolee tey dañu tëgg plan cadre bi bu bees bi parce que tamit euh, amoon na beneen plan cadre boo xam ne moo njëkkoon mais tey. ñëpp xam nañ ne euh, travail des enfants am na yeneen réalité yu bees jël na yeneen phénomène jël yeneen ampleur du moins donc tey euh, document bi nga xam ne tey moom lañ ñëw pour euh, vulgariser ko avec les acteurs locaux am nañ ci ay axes yoo xam ne ni ne surtout bu gën a intéressant mooy le volet éducation ak la formation am na yeneen axes yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xam ne tey tëgg nañ ci pexe yi nga xam ne moom lañ mën a def pour nga xam ne dinañ mën a euh, endiguer carrément le phénomène du travail des enfants. lu yoon waaw am na ay peine boo xoolee code pénal bi rek si article deux cent quarante cinq bi am prévoir na de ay peine surtout sur la mendicité voilà am na ay amende yoo xam ne képp koo xam ne da ngay liggéeyloo xale rek am na ay amende dafay am dem na ba sax ay am ay ay kii ay ay amende wala ay emprisonnement mm-hmm. pour ñi nga xam ne tey dañuy liggéeyloo ay xale yooyu yëpp mu ngi ci texte yi. Euh, état kii loi yi prévoir nañ ko.